Euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ci ne ci turam ak santam tey tey ñu ngi fii ci école Issa dem ànd ci ak le candidat de la jeunesse Cheikh ndoy muy jóg ngir nettoyer école yi nga xam ni moom moo nekk fii au niveau de la zone nord tey ñu lancé ko fii nga xam ne moom mooy école Issa Dème fi nga xam ne moom mooy fiefu Cheikh Ndoye candidat de la jeunesse euh, sam samedi prochain incha allah rab ñu ngi jëm école El mu Moundiaye Thiaw noonu lañ ko bëgg a toppee ba école yëpp mat su ko defee suñ jarbaat yi ak suñ doom yi nga xam ne ñoom ñooy jàngee ci école yi mën a jàng ci conditions yu baax et puis corps enseignant ba fa nekk aussi mën a nekk ci ay conditions yu baax tey nag gis nañ ni fii bi ñu fi accès nettoyé nan classe yi nettoyé nan cour bi bay ñax mi nga xam ne moo fi nekk mais li ci ëpp solo mooy ñu vider fosse bi nga xam ni suñ jarbaati ak suñ doom yi ci la ñuy nekk tey nag dama am benn appel boo xam ne moom laay lancé muy ñi nga xam ni dañu déclaré ni ñoom ay candidat lan nan wàcc ci terrain bi dafa jot ñu wàcc ci terrain bi parce que bo do xol élection yi li ci des bëreetul fi nak amul lenn lo xamni ne ñun doon koo inventé wala lenn lo xamni ne ñun doon koo sos duñu gis ni booba tey le candidat de la jeunesse depuis bi nga xamni def nak déclaration de candidature muy le 8 mars 2020 ba tey mi ngi sur le terrain di liggéey loolu mom moy tax ëllëg au soir du 23 janvier ñu mën gagner élection yi mais man mënumaa concevoir nga ni candidat nga ta sa candidature ci fenn rek nga ko porter moy nek ci groupe WhatsApp bi ñu lay duggal say photo loolu nak dafay war wara jeex likoy koy jeexal mooy ñu devons a terrain bi devons a wàcc terrain bi jamarlo ak population bi devons a wàcc terrain bi devons a faj soxlay population bi man japp nan l'ol mom moom la ñuy élection yi. amna nak fo xamni fa leen bëgg a moy ñu lancer un appel war ñu am lo xamni ñu doon koy wax ki nga xamni mom moy le président de la république nga xamni mom moy patron Benno Bokk yakar li nga xamni ci lañ jëm moy élection 23 janvier ci bopam dañ koy wax ni ko il faut que mu jema def le bon choix le bon choix moy ñi nga xamni waxu ñu Cheikh ndoy la de ñu na tànn Cheikh ndoy dédé mais dañ koy tànnaloo ki nga xamni ne moy nek ci terrain bi ak bëcëk suba ak ngon du lundi au dimanche ngir jappalé population bi ki nga xamni formation des femmes mo ci nek ki nga xamni ni moom moo ci emploi des jeunes parce que lu ci mënti xew même bu acteur politique directeur d'entreprise la mi ngi jël ay ndaw ñuy liggé ki nga xamni mom mom moy juk ngir lancer concept dox mbokk boobu nga xamni dafa juk ngir saafara soxla population bi ki nga xamne mom mo juk ngir nettoyer école ngir sun doomi mën ci jang bu baax ki nga xamne mom mo juk ngir lepp lo xamne rek lu jëriñ population bi mo ne bu fekkente ni Cheikh Ndoye la gis ni mom mo baax na ko ñu jittal ko ci kanam en tout cas dal appel bobu la lancer mu baña def un mauvais choix ndax bu defé un mauvais choix tamit ay jafe-jafe rek la ci indi mais bëgg fallu encore une fois may wax ñi nga xam ay candidat lan te dëkk fi ci zone nord nañ juk dugg ci population bi loolu moo ni lo élection yi mais bo toogee ci sa ëllëg boo demee ci population bi tamit bëgg ni leen maa ngi dagaan euh, seen seen seen i su boobaa ak jéppee rek indi su boobaa tamit ak noonee rek lay indi loolu daal leen ci bëggoon a wax mais en tout cas daal lii ñun gëm nañ ni mooy gañaloo Benno Bokk Yaakaar au soir du 23 janvier. salaamaaleykum waa Thiès waaleykum waa ñu ngi nuyu waa Carrefour Média di nuyu toute l' équipe aujourd'hui qui accompagne le candidat de la jeunesse yoo ne lii rek dafa dem ci cadre concept ubbi tey jàng tey. Donc, ci à notre niveau concept bo xamé ni duñu ko duñu théoriser mais dañu koy pratiquer liñ ci à la hauteur de nos moyens ak suñu doolé suñu ci école yi permettre un cadre bu accueillir le corps professoral ainsi que les élèves pour euh, ñu nettoyer école yi ko ko vider fosse pour permettre le minimum bi nga xamee ni mën nañ ko indi euh, xale yi mën a dans de très bonnes conditions. a jege gën a yay ngent laa dëkk fi laa yeewoo école ko ngent su day Samba Alar la te euh, nit ki fi nga dëkk nga am donc euh, fii laa ko wara a mën ndax sama kër est-ce que pour 19 quartiers yi zone Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, toutes les écoles de Thiès Nord prennent pour nettoyer ko bu soobee candidature, 2022, mhm. pour les locales, mhm. est-ce que Cheikh Ndoye est toujours candidat. Cheikh Ndoye est plus qu'un candidat en ce moment. Cheikh Ndoye est fin prêt pour partir à ces élections. Oui, nit ku nekk ci formation politique nous di nga discipline de parti. je suis de la paire, je suis du Benno Bokk et je renouvelle aussi mon engagement. à cette appartenance politique dinañ déglu président de la république nag waaye na bàyyi xel xam ni ci ay nawetaan lañ jëm ci gox-goxaat lañ jëm président saa su nekk damay wax ni na ko Sénégal doy soxla nu mu doxalee réew mi suñu communes yi ñoo fi yeewoo ñoo xam li fi nekk ci biir loolu nag dinañ ko déglu ak yar gim laaj ak teggin gim laaj waaye li ñu liggéey boobu ba léegi wàcc si terrain bi ni ñu population yi di dégloo di ñu bàyyee xel yaakaar naa ni 23 janvier 2022 dem élection rek moo ñu jikk wa xam nga nit mom, xam nga da ngay gis nit nit ki taxaw ne man maay borom wala nit ki taxaw ne <laughs> maay borom dëkk bi xam nga nit mom, da nit ñi moom da nga leen nangul seeni slogan rek ñun newuñ ci ay slogan newuñ ci ay théorie ñun ci pratique lañ nek ci terrain bi lañ nekk ay ku wéet xam sa bopp ku wéet xam kala man nous avec Macky Sall on n'a jamais raté de campagne bañ àndee ak Macky Sall ba léegi mosuñoo bàyyi Macky Sall ci benn campagne lu mu dem lu mu lu mu ngi ci dimbali ci askan bi mooy ku koy jegeel askan bi te yaakaar naa ne ñun jegeel nañ ko askan bi te ñun suñu candidature dañ koo mën a layal ndax maire bii fi nekk wax naa ko waxaat ko défier naa ko défier waat ko au moins dugal nañ 800 millions ci commune bi ay infrastructure ba ci maire bii mu dëkk nekk tey mur de clôture bi ñun ñoo ko def indi suñuy partenaire ñu def ko ñun tëbuñu tëb di laaj tey bu ñu nee rek le plus grand centre commercial de Thiès ñun ñoo indi partenaires yi ko réaliser yaakaar naa ne loolu rek doyoon na doyoon na ci bilan fermeture canalu marché centrale bi doy na ci bilan mur de sim cimetière yi monsieur le maire dëkk doy na ci bilan école mur de clôture école Kër Modou Ndiaye doy na ci bilan mais loolu yëpp ñun ñii la ñun xam juguñu di laaj laajantuuñu c'est parce que dañoo xam liy doxal institution municipale dañ ko xam eh, ndem si yàlla si Mamadou Dieng yàlla na ko yàlla yërëm nambatal ñu ci ñu xam ko ba pare bëgg suñu askan jege suñu askan nekk fi sept sept jours sur sept donc tëbuñu tëb tëb di laaj de sëñ bi teyit bu ñu ko teg ci affaire mbiru Benno Bokk Yaakaar APR entre autres xam nga lu ñu intéressé fi mu nekk nii li mën a doxal dëkk bi ñu ànd ak doomi dëkk bi dem doxal ko loolu képp a ñor.